jëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyati lañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii ci pàqu làmbaay bu ñu nee pàqu làmbaay tudd làmb nga xamante ne xaaj gi yëpp ñu fi nekk ay amateuru làmb wala ñëpp ay amateuru làmb lañ ndax pàqu làmbaay bari na loo xamante ni euh, bu ñu tuddee Sandaga tudd pàqu làmbaay tudd fi nga xamante ni mooy euh, euh, chambre de commerce ak yu mel noonu da ngay xam ni gox la yoo xamante ni ay nit yu dund làmb ñu ngi fa moo waral tey ñu ñëw pàq làmbaay dugg si xool mbokk amateur yi xool ni ñuy waajee journée bi nga xamante ni euh, Fallou Ndiaye moo ko ji moo ko tëgg fële ci arène nationale doon lutte traditionnelle rawatina ñu war fa def signature contrat bu mag boo xamante ni ñu euh, ngi production moo ko fay organiser. tournoi boobu nga xamante ne champion xale yii nga xamante ne actuellement bu subaa mën nañoo doon champion ci làmb moom la boole dañuy dugg nuyoo kilifa gi maa ngi lay ziar. baa ji maa ngi lay ziare. maa ngi am jàmm maa ngi jàmm waaw. naka dikk bi. da sant rek. ñu ngi sant bu baax maa ngi ñëw jiw xaaral ma dugg ci biir gars yi dugg ci biir gars yi kooku mooy promoteur bi Idaly ñu ngi kilifa gi. salaamaaleykum na ngeen def. maaleykum salaam sant yàlla bu baax. maa ngi am jàmm sant yàlla bu baax tubarkàlla. du dëkk bi waaw. waaw sant rek sant borom Tuubaa wér. tur bi lan la. Jili Mbaye. Jili Mbaye. ah yow sama turandoo nga. oui oh, yaa gis nga. waaye baax yaa ma gën a baax yaa ma gën a baax yaa ma gën a baax yaa ma gën a baax yaa ma gën a baax. waaye sant borom a ko wét loolu àdduna a ko wét. lan ah, oh. a ngi koy waaj a ngi koy waaj. wër na Serigne Touba mu nekk ba pare ndeysaan euh, comment bu ñu tëgg bool ci bool bool yi ñoom daal lu ñu am yërmande ndax dañoo wër yàlla seen teraanga bu ko def ci làmb ji te bu neexoon yóbbu ko feneen bu ko jobal dobaar yi moo doon ko def quoi kontaan a a wér wér yàlla xam na ko kontaan nañ ci bu wér billaahi gaa pare nan baaku laa may ñëpp pare ñëpp da ngeen a def maas ñuy ndekki baax nekk ak ñun di ñu ngor nit koo xam ne lu ma am bokk ak doomu aadama yi doomu aadama ñoo tey siiw barke maam si rafaal lu ma am bokk ak nit ñi bëgg mbokkam fonk mbokkam fonk sëriñam ñu ngi ñaanal suñ yàlla defal ko jàmm ba maanaam mu raw promoteur yëpp ci barke sëñ Touba yàlla ma yàlla ko def ci barke borom Touba amin amin laay wax amin parce que idaali idaali ñëpp la sëñ bi noo idaali yàlla ñëpp la quoi man la Ibrahima Seck Ibrahima Seck sant bu baax mbaa yaa ngi am jàmm maa am jàmm baax xam nga li xew arène nationale sam xam nañ ko koy ba pare suba bi moom ku ñu fa dëgëral nee ñu masta dañuy teew waaw ñun waa Bawol gépp nu ngeen waaw dañuy teew parce que ñun waa Bawol même bu dul làmb làmb bu mu la doon bu baax bu Fallou Ndiaye di ci idaal ñu ngi dañuy dem waxatuma laa mu nekk suñu làmb ñun. kon il daanaka ñoo moom làmb ñooy amateurs ñun bawol bawol ñun ñooy amateurs yi ñun ñooy vrai amateurs yi ñun chaque jour ñooy dem stade bii du ñu ñoo koy ñooy toog di ko seetaan comprendre nga fay ñun ñooy amateurs yi ñun ñooy bëgg làmb ji waaw comme nag suñu mbokk xew lay woo nañu dañuy dem même bu ñu woowoon dem mais comme que woo nañ ñu ñëw tiiroon ñu tudd ñu làmb ji ñun dañoo war a def foofu teew waaw loolu mooy wax ji quoi waaw. mu delloo leen njukkal yéen ñi nga xamante ne yéen waa Bawol yëpp kon li dem fekk fa mbaax loo am ci mbaax foofu nga ko yóbbu kon Idaly ak Fallou Ndiaye li ñu am ci mbaax yóbbuwaat nañ ko ba. waaw Idaly ak Fallou Ndiaye gàcce nga la baax parce que Idaly booy bu ndaw la xale bu ndaw la ni ñu koy gis nii ñu maa ko mag fop yaa ngi dégg ba mu Ndakaar ba tey day déwénee ci làmb ji topp ci def nii man lii bettuma ci moom waaw parce que moom yàgg na cee bay waaram yaa ngi dégg dem nañ mbapat fu ne dem nañ fa di seetaan yi mu toog moom nekk moom amateur la avant lépp moom amateur la moom dañ dem maag moom di ànd làmb ak gars yi yëpp ñuy dem di seetaan ñu départ ñu bisi comprendre fi ma waxee mbir mag yëpp ngay dégg fii Pikine fii ci kawam lañ daan bootu en général doon ànd ak ñoom mais képp kuy amateur da ngaa war a ñëw ci bis bi. waaw muy waa Fass ak waa Guédiawaye ak tout ñëpp war a ñëw ci bis bi parce que bis bi comme Bawol lañ ko sargalee dinañ ko tuddee ñu ñëpp war a ñëw ci bis bi parce que Bawol ku xam bawal boole xam nay amateur lamb lañ ñoom ñooy fees lamb ji yaa ngi dégg boo gisee ruq bi ruqu amateur yi am fa bawal la tax yaa ngi dégg su ma xee Fass ak ñu ngi leen ñëw jàppale Idaali ñu ngi fan su Ama Baldé yi fan su Eumeu Sène yi fan su Boy Niang yi ñëpp nañ leen woo ñu ñëw jàpp ci bis bi comme naa ñu fexe te xam ne Idaali moo xewle ba dul dara Idaali moo doon dem stade chaque instant yaa ngi dégg dem ba topp ci lamb ji di rëñe ba nekk promoteur tey ñu dañ ko war a jàppale yaa ngi dégg waa Guédiawaye fan si Balla Gaye ñu ngi leen woo parce que Balla Gaye moo doon ànd ak idaal yi di tourné fu nekk mu fay dem Ama Baldé même chose comprendre nga ñoom Eumeu Sène ak ñëpp nañ ñëw jàpp ci bis bi mooy yoon parce que dafa rafet parce que idaal yi dafa joxe dara ci làmb ji dafay yàgg a ràññee comprendre nga fi waxee yàgg cee topp yàgg cee suxu moom lu mu ci am ñun bettuñu man bokk lu mu ci am man bettu ma idaali man pour man damay toog ak moom ma ne ko président da la recevoir da la recevoir mais nag dayal ko da laa mënul xam mais bu la xamee rek dina recevoir parce que yow ràññee nga ci làmb sonn nga ci parce que ay mbokkam sax talatu leen ay mbokkam sax talatu leen ndax làmb ji topp di ko suivre ba pare moom bëgg xale yi bëgg làmb moom moom amateur bi ñuy woote nii moom moo ci jiitu moom waaw parce que ñun suñuy rakk lañ yaa ngi dégg fi mu waxee ñun daal ñu koy laamal bis bu nekk ci jàmm ak salaam ñu feete ko mais nag fajateel ñu ngi stade ah. ndeysaan <laughs> laa ilaaha illallaah bool bool yaa ngi loolu noo de sant Serigne Touba. waaw yaa ngi am jàmm maay sant Serigne Touba baax xam bu rëy ma nga fa Idaali ñu ngi ak Fallou Ndiaye lutte traditionnelle contrat bu mucc ayib ci trois xale yi nga xamante ne boole nañ. waaw loolu moom dañu ñu ngi ciy kontaan bu baax ndax Idaali sunu rakk la te yàgg naa dund làmb. ñoom Balla Gaye 1 ñoom Eumeu Sène ñoom ñëpp la woon surtout ma Balla Gaye Balla Gaye 2 man ñu ngi ko ciy woo bu baax a baax wax nag daal nag fa mu dëkk daal ba mu dëkk fa la fa la mbër soqe ko ndax boo ma jëlee Serigne Ndiaye 2 jëlee fa Djigo Tine ñooñu ñëpp nga doon dem boo déggee ñu waxal bawal ak supporter ak euh, lamb ji ak amateur ñu ngi ko jëlee Lamine Gueye fi naa foofu la amateur yi ëpp woon ñun baal bu dee 10 000 sax baal baal yee koy jënd billet bu dee 10 000 baal baal yee koy jënd baal baal yi ñooy supporters yi gën a li riche ci ci ci làmb ñun làmb lan xam tamit moom la ñuy dund surtout maa éral yi ñun fu mu nekk rek Fass ak fépp ñun loolu moom la ñu àndal ñu ngi koy ñaanal bis bi nag mu gën a rafet amateur yëpp salaamaaleykum da ngeen di ba ban heure ngeen wàcc euh, ah, bu ñu paree rek bu ñu déggee pare moom man mu moom da da ciy looloo tax arène def sax ñun la a ñun la a arrangé. ay ñoom démb jëm ak yooyu ñun dañ doon sonn bala ngaa dem son boo ñëwee sax bëgg a ñibbi si waat Pikine coow lay nekk ci yow rek àgg. bu subaa dina métti dina neex. nga baalu fàttali Xaadim Seen. jërëjëf Xaadim ok jaajëf jumaa ji kenn du moom. ndeysaan kaay sëñ Bas dama koy topp promoteur baa ngi noonu di dem. Idaali ñu ngi mais Idaali man ngaa man ngaa de. waaw ñun daal ñu ngi wax suñu mbokk bool boobu lépp di wax ne ñun bool la ñam. képp koo xam ne maa bool bool nga ci la woon ndax Fallou Ndiaye dafa def si boo xam ne dafa rafet. jël rakam magam ñu bokk ndey bokk bàyyi. def ak suñu rab yoo xam ne maa nga tey lamb xel mooy waa woo suñu mbokki Bawol Bawol yëpp daal di wax ne nañ jàppale seen i doom mm-hmm. nit ku nekk fa nga dëkk foofu ngay tiitaroo mm-hmm. te ñun Bawol moo na mm-hmm. kon cent pour cent Bawol bépp ñu ngi leen ci woo rawatina ñi nga xam ne maam dañ ci war a wax yëpp daal ku mel ni Sele ñu ngi mee eh Sele Sele Sele ndeysaan moom amateur bu mag la nga bokk papa maanaam moom itam nga day topp lam te daal li ñuy wax daal suñu mbokki Bawol Bawol yëpp daal nañ ñoo jàpp te lu nam bool lañ ko yóbbu waaw bala ñuy sanc fa dara Ndakaaru dañ koy sanc bool waaw te kon nag suñu mbokk yi amuñu lu mm. fii laa doore nag fii laa defee lépp waaw fi la ma lamb mm. wax ne ma bi Fallou Ndiaye jël muy war ci def nag tirage boo xam ne muy diggante Yankaaw ak Albarka Kayre Kaaw Gourne ak Thiat Daouda Fall yooyu mm. face à face war na fa am Koña ak Ronaldinho jeex jàmm war na faa daje ak Ama bu Yoff dara na ñu xew-xew yi ma war a ak bébé Elton bu yoof ak jeex jàmm war nañ faa daje teq jël war na faa daje ak réparé ak yeneen combat yoo xam ne te face à boobu daal ñi ngi ñaan gars ñoom mbaytin dab waaw xam naa daal suba daal képp ku bëgg gis lu neex moom naka ñëw incha allah ci drapeau bool du yomb du yomb kilifa gi maa ngi lay nuyu jaar naa la baax tribunal la sele ñëng sele ñëng waaw nga nekk ci rakk idaali wala mag idaali waaw magam yaa magam waaw daal di kon xale la. waaw bu rek xool sa kanam gi xam ne xale nga. <laughs> dëgg la. ci ren sant yàlla nooy nu ngeen waajee journée bi nga xamante ni Fallou Ndiaye organisé na ko suba idaali ñu ngi war fa def signature contrat xale yi nga xamante ni moom la tëgg ci at. waaw loolu day li ñuy wax delloo Fallou Ndiaye daa delloo mbaatu ci ndaara ndax dafa tëgg journée. teg mis ñu ël wax mu ne da koo tuddee bool bool yi loolu di lu fort waaw dëgg yàlla loolu moom dañ ko ci bu baax a baax. ndax mu ngi wane ne daal moo ngi bàyyi xel fa mu cosaanoo daal te loolu daa am solo kon bu baax di ñaan journée bi tamit lu mu ciy séntu rek yàlla borom bi ko ci lu kay njortam waaw ndax am na solo lool waaw ñi ngi production tamit war caa def face à face boo xamante ni mu lay waajal muy galaa xale yi mu boole waaw ndax làmb moom li ñuy wax rek dara bu baax faal tise bu nee ngi ci daal waaw làmb daa daa jaboot waaw kon nag ñi ngi ñaan moom tam loolu nga xam ne moom la sémb yàlla borom bi defal ko ci ndam ndax boo naa ay ndaanaan ay xale ay révélation ñoo xam tamit làmb bàyyi nañ xel te làmb yaakaar na leen su leen ñu ngi jëlee boole leen ñu war a daj ci tàkkusaan mu def ko mel ne tournoi waaw loolu dañ ko ciy remercier di wax ne moom tamit mu ngi béy waaram ci làmb ndax boo doonee xale doo tëb njëkk ca mag yi da ngay njëkk ci say moroom ba pare boo demee ba say morom baam am ci ñoom ndam boobaa nga soog a jàll ci mag ñi kon nag moom dañ koy encouragé di wax ne fi mu ko teg rek foofu la na jàpp rek yàlla baax na ndax làmb moom dafa métti milieu bi moo xaw a doy waar nag daa doon loo xam ne boo ci xasee nekk moom da ngay dox rek jëm kanam parce que kii dox di geesu du gaaw yegg fa dee nekk nag am na yoo xam ne foo jaar di ko dégg mais faaw tamit ngay sëgg di bàyyi noonu mu sedd parce que boo bëggee lu la wax ci làmb nga tontu ko mais yaakaar naa ne fa nga jëm doo fa gaaw ndax làmb moo baaxoo lool. ci coow lay njëkk nag waaye ci jàmm lay mujj waaw. ndeysaan mu mel ni drapeau bi ñu jël sargalee ko bawol bawol yi bawol bawol yi dañoo fas yéene def en masse jubali fi nga xamante ne arène nationale mais li ma jaaxal mooy bawol bawol fi ñu nekk dafa bari waaye pàq lambaay moom rawatina da ngeen di sëqat rek yegg ci arène nationale. waaw loolu tamit bu boobaa tamit maam dañu woo fuufu bawol bawol ne rek. xam nga bool bool yi moom yaatu nañ yaakaar naa Dakar boo fa génnee bool bool yi. dara du fi li fiy des waaw kon nag wax dëgg yàlla moom moom nañ xam ne. ki la ki ne kaa ñu lekk ñax daa fekk ñax amul yàq moo tax mu lay lekk loo ñax kon du la ko lekk loo te ki la fees loo nag moo la yàpp loo kon nag wax dëgg yàlla bés du tuut borom lay lool maam ñi mu ko ñi mu ko dara jaale nañ xam ne teraanga ak gàccaayam benn du ci ndaw nañ ko delloo li nga xam te ni moom la leen jox su boobaa maanaam dinañ delloo mbaatu ca ndaala ñu ngi leen remercier di wax ne nag nañ ci jàpp ci bis bi ndax comme seen doom dooma woote dipee leen ko ñoom tamit nañ ci jàpp te xam na nit moom kenn du ko xeebal bésam boo ko xeebalee bésam rek moom nga xeeb na ci gars yi jàpp jàppale ko xam ne ndaw la xale la day soog a tàmbali ñu ñaanal ko lu mu sumb yàlla defal ko ci ndam ba fi gars yi àgg bonkali mag yi bu dëkk bi si mag ñuy tudd moom mu àgg fa. te dana fa yegg incha allah incha allahu rabbi ñu leen remercier bu baax a baax di jaajëfal nii ngeen def rafet na man maa ngi doon waaj ñi dem juma waaye dama ne mënu ma cee ñàkk sànni kàddu daal wax dëgg yàlla ñu ngi koy rafetlu bu baax yéen tam mm-hmm. ngeen dem ba am ci télé bu mag a mag a mag télé yu yëpp di suivre parce que tamit ndeysaan li ñu wax rek mm-hmm. loo gis rek li naan eh, eh, bërëm bitiku mbàgg boo xaar xol ba maa nga seen nga tey fekk kon tamit lii ngeen def la kon tamit fu ngeen man di dem di laaj képp koo xam ne rek am na ci idée xalaat nga leen jox leen xalaatam parce que yéen tamit bu fekkoon tey jii amaana amu leen kenn ku leen bu boobaa fa ngeen liggéeyee bu weer dee kenn du leen fay kon nag ñu ngi leen di ñaanal ngeen dem ba am seen ay bopp am seen télé bopp bu boobaa yéen yeneen doomu Sénégal ñu toog fa di liggéey bu boobaa ngeen di jox leen seen ñaq ñu ngi leen di baax a baax yal leen yàlla taxaw defal leen jàmm jërëjëf kontaan naa bu baax ñu ngi jërëjëf kontaan naa bu baax tey ñu ngi pàq làmbaay comme niñ la ko waxee di wër ci place yi di dugg sëñ bi maa ngi waaw maa ngi lay naan la Dame Diouf la. Dame Diouf. waaw Dame Diouf de boo ko déggee xam ne bool bool pire. waaw bool bool 100 pour 100 kay. <laughs> waaw. li bi rawatina Idaara ñu war fa def jàkkaarloo ci ay champion yu xam ne boole na leen. waaw xam nga journée boobu nag dafa am lu rafet lu ci am. parce que Fallou Ndiaye ak Yadaly ñoom ñoo bokk làmbaay ñoo bokk bool. te ñun Yadaly lu mu nekk suba ba ngoon ñanga si pour mu avancer rek leen bëgg pour mu jëm kanam rawatina tamit muy ànd ak Fallou Ndiaye magam nga xam ñoom ñaar ñoo bokk bool loolu dañ ciy kontaan quoi ñu ngi koy waaj bu baax baax baax di woo ñëpp di woo waa bool yëpp di waa Pàkk Lambaay di woo képp ku bëgg daal ñu ngi rek ñu ngi lay woo quoi ci bis bi. bis bi lu ngeen koy waajee parce que daa jël lu mel ni drapeau bi ja dara dara jaayal ko waa Bawol yéen ñi nga xamante ne yéen ay doomu Bawol te lépp ci làmb yéen a ko liggéey ba tax ñu leen di dara jaal bi nu koy waajee. Euh, dina yomb du yomb. parce que euh, bawal boo leen tuddee mbir rek maanaam tudd nga ko ñu ñu rëy maanaam daanaka tudd nga ko àdduna daal. Mm. parce que bawal daanaka boo ko génnee ci ci Sénégal mu mu jeex. Mm. parce que ñëpp ñoo xam ne ni tekki na fi dara wala ñu doon fi dara boo leen boo leen dàqee bawal la ñuy ñibbi. Mm. léegi nag bis bi kon ñu ngi ciy woo waa ñu ngi koy waajal bu baax a baax a baax baax parce que dafa doon ñaari bis yu ñu boole. parce que yaraale ñu ngi kenn ku ne xam na ne bu wootee Iba Mar day fees dell. kon tey su jëlee bisam boole ko kon day gën a neex rek ñu ngi woo ñëpp rek di ko waajal bu baax ak yar ak teggin ni ñëpp ñëw si jàmm ñu def ko si jàmm mu jeex si jàmm parce que ñun loolu rek la ñu xamee. jërëjëf mu mel ni euh, xool sedd na yéen Baol Baol yëpp yéen a ngi waaj suba incha allah arène nationale. waaw Baol Baol yëpp ñu ngi préparé arène nationale. parce que tamit Yadaly Gningue dafa doon nit boo xam ne dafa baax man di wax ak man maay président des amis de Yadaly Gningue. comme ça ñi nga xam ne ñoo bëgg Yadaly Gningue ñëpp man maa leen jiite. waaw tout le temps ñun ñu ngi dox ci maanaam lu ko avancé rawatina Fallou Ndiaye sunu mag sunu mbokk nga xam ñun ñëpp boo ñu ñoo bokk fu ñu ñibbi. waaw kon ñu ngi woo ñëpp. arène nationale suba incha allah rabbi mu doon affaire bu rafet affaire bu rafet a rafet parce que mbir yi xale yi dañoo bari bëgg a bëre xam nga lii da ciy baax tegal leen 3 millions 5 millions. kenn ku ne wane sa bopp ku sa nekk nga jël ko yóbbu loolu lay tax xale yi sawar quoi moo gën ku am benn combat toogaat 3 ans 4 ans doogaa am beneen combat mais bu ñëpp defee nii daal di ñëw ak ak yeneen promoteurs yi nga xam nii ñu ngi bëreloo di woo waa Marisien gi ñu dëkk di woo waa Ridis ñëpp ñu ngi woo. suba incha allah rabi arène nationale. Hmm. jaajëf. ok waaw jaajëf kilifa gi kaay. maa ngi lay nuyu. waaw ah, noonu kasaalika na ngay tey. jàkkaarloo caméra bi tur bi. ah Modou Sarr la. Modou Sarr. waaw ah, Tako eh, bari eh, xam nañ la ci làmb ak bëgg gi nga xamante ne am nga ko ci cofeel ci làmb eh, tey suba Fallou Ndiaye woo ñu fële ci arène nationale idaali war fa def jàkkaarloo champion yi nga xamante ne dëgg na seen combat ban yëg-yëg nga ci am ak nu ngeen koy waajee yéen Baol Baol. Ah, waaw ñu ngi koy waajal comme d'habitude ñu ngi ko daan waajal rek ndax xam ngeen Baol Baol incha allah ku si xewle rek day mel ni ñëpp a xewle kon boobu ñu ngi def suñu vraiment ñu ngi mobilisé wu di ñaan gaa yëpp tamit ñu ñëw esaat euh, incha allah di ñaan yàlla suñu borom defal na si ndam si bis bi ndax euh, Bawol Bawol dafa bokk si làmb ndax mënoon a Sénégal fii te tuddoo si Bawol Bawol ndax moom la fekk baax kon tamit vraiment daal bis boobu ñu ngi koy rafetlu di encouragé suñu Fallou Ndiaye di encouragé yu daal xale yu ndaw lañu. kon bu ñu amee loo xamante ni dañ ko bëgg rek ñun tamit suñu devoir moo ñu jàpp leen si ne serait-ce expérience bi ñu am si làmb euh, ndax après bu après tout am na loo xamante ni xam nañ ko si làmb ndox dund nañ ko si daal. waaw kon donc vraiment daal di rafetlu bis bi di ñaan yàlla suñu borom yegg si jàmm. Euh, ñu réussite bu ñaan yàlla suñu borom réussite am si loo xamante ni daal incha allah. fu foo xamante làmb bëgg nañ fu egg Sénégal rek loxo bool bool bi dina si dem incha allah loolu ñoom ñaar ñëpp ay doomu bawal lañ waaye rawatina ñu jël drapeau bi tuddee ko bawal bawal yi euh, tuddee boobu ñu leen ko tuddee ak dara jaal jooju ak yëkkati googu nga xamante ne saa su ne ñu ngi koy yëkkati turu bawal rawatina ay doomu bawal ban gis-gis ngeen ci am. loolu vraiment fierté la sentiment de fierté la hmm. képp am na loo xamante ni nit ki bu la ko tuddee rek sigil na la ñëw ndax bien na la obligé par exemple ñu tuddee ko Baol Baol bien vrai ay Baol Baol lañu mais bu leen neexalee tamit duñu ko keneen kon bu buñ ko tuddee Baol Baol yi defe naa ñun Baol Baol yëpp ñoo war a wu jàppi cent pour cent kenn bañoo njëkk sat kenn bañoo mujjee sat aussi loolu daal lañ leen am si lu ñu wax daal jërëjëf kilifa ah merci beaucoup jërëjëf et du courage jaajëf ay ca kaay ñu dugg ba tey yegsil Dame Diouf. Dame Diouf waaw. mbër. Dame Diouf mbër wala Dame Diouf bool bool. Dame Diouf bool bool. lépp mën naa nekk loo neex waxal. non mais Dame quarante bi ngi nga Dame Diouf bool bool. waaw quarante baa ngi nii. Ah, bu la biir bool bool yi. Ah. mu demee kii ba tamit ñu ngi si tamit. da nga mbëru Bawol Bawol. Dame Diouf mbëru Bawol Bawol. <laughs> loo xanaan ci loolu rek. maa ngi nii kay. yaa baax yaa am jàmm bu baax. suba journée bi nga xamante ni Fallou Ndiaye woote na ko fële ci arène nationale. champion yëpp war fa daje rawatina jàkkaarloo bi war a def. waaw ñoo ngi koy waaj bu baax a baax. di ñëw pour gunge suñu suñu doom day. di daal di ñëng nga xam ne lépp lu Bawol Bawol yi rek. moom mi ngi ciy taxaw. daaw rek la moom mu a tëgg jàppale ma wax dëgg fa yàlla. Mm. kon nag ñoo ngi koy ñaanal jàmm di rafetlu tamit ki mu tuddee drapeau bi di suñu grand Fallou Ndiaye. Mm. ñu leen di rek saa su mm. di ñaan yàlla mi nga xam ne moo ko moo man. Mm. yàlla na ko yëkkati rek man koy dégg fi ñu dégg promoteur yu mag yi. en tout daal ñun ñu si daal. est-ce que di ñooy fa. ñooy fa takk ma ne la ñooy fa ñooñ ci la wër ci biir gars yi. ma ne la ñooñ ci biir. du jeex de bis bi daal suñu bis la du yomb. Ah. ñooy fa. waaw ah, kon du kon du yomb mbër ndeysaan ndeysaan ah, ndeysaan waaw fii de baax na moom. papa maa ngi lay siyaar. waaw yàlla yàlla yàlla yàlla dolli ñu siyaar yàlla ñu gën a. waaw yàlla yàlla gënoon nangu ziar rek ñoo ngi ziar bu baax ñoo ngi ziar bu baax tur bi nan la Ibra Tike Sarr Ibra Tike Sarr waaw Père dafa mel ni amateur làmb waa waaw yéen làmb dinaa koy seetaan waaw dinaa ko waaw koy seetaan am nga ci mbër waaw am naa mbër de kan mooy sa mbër Balla Gaye numéro deux lan la gën a neex ci moom ndaanaan la ndaanaan kullu fadlin mooy Balla làmb Euh, Balla bu nekkee làmb xanaa Eumeu Sène mooy Sénégal. non non déedéet man ma foofu. Ah, ah, ok waxee foofu. Euh, xam nga bu même Eumeu Sène boo ko tuddee man de la mut la. ah ah ah. ah. fii moom koo fi tudd. am na ko ne ci ginnaawam. waaye nag bu ñu defee an euh, nu mu ko waxee te noonu. ñu yër bagage yi. dëgg dëgg dëgg dëgg. ku ci réeran du yàq ci làmb jara waaye saa yu Balla réeree. wala mu tukki. làmb yëpp di ko jàmbat. xam nga loolu yàlla may yàlla loo gis rek am na ko ci yàlla seppi defal ko ci looxaay ñëpp xam nañ lii yàlla. Mm. Balla li mu yor may yàlla la. ki doon na ki doon bokkulu ki doon ak ki doonul ki ko doon ak ki ko doonul. Ah. bu ñu départandoo rek nga xam ne ki ko doon moom bokkut ki ko doon. am ngeen bis bu rëy de a wax ci moom. Ah. waaw parce <laughs> rek garaaw. waaw ah, du la <laughs> ne hmm. moo ko organisé lutte traditionnelle fële ci arène nationale. mais mu lëkkaloog Idaali Ñing di fa def Idaali di fa def li nga xamante mooy jàkkaarloo combat yi nga xam ne tëgg na ko ci ci ci at bi mhm. mu doon lam lëkkaloo boo xam te ne lëkkaloo bu rafet la mhm. rawatina mu jël drapeau bi mhm. dara jaay ko bawal bawal yi ban gis-gis nga ci am gis-gis bu rafet ñoom ñaar danoo delloo mbatt ca laala ndax diggante ñaxab am jujuuf yaakaar naa foofu benn dëkk fi dox wala ñaar kon bu na àndee ñoom ñaar war nañoo ànd rafetlu nañ kon waa làmbaay gépp ñoo seen ginnaaw di leen wan ne ne làmbaay xewle xam nga làmbaay moom ñëpp leen xam foo taxaw ci àdduna ne làmbaay ñu ne ok ba nekk ci bis baak jàmm ñun ñëpp deen ñëw mobiliser wu jàppale leen ba nga xam ne waa Lambaay moom bu ñu xëyee la Lambaay gépp na seen ginnaaw. ñoom it nii ñu def noonu la. Mm-hmm. waaw nan ci góorgóorlu. Mm-hmm. bu ñu ci góorgóorloo mën na ñoom ndam. ndax làmbaay yu mel nii bëriwu fa daal. kon ñoom ñu yàlla defal na Fallou Ndiaye góorgóorlu bëgg si ñëw si. ya daal di rakkam ñëw. di dox ci tànk yooyu. nañu collaborer nekk benn. buñ ko defee rek waaw mën naa baax daal. waaw kon da nga leen di gën a ñaax rek. a ñaax gën leen a dolli gën leen a ñaanal ci barke Seydina Mamad. Hmm. barke Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane mi nu yaakaar. ak sëñ Aliou Diouf Lambaye. yàlla na may ndam ci lii ñuy def ñoom. kontaan nañ bu baax. moo ko bokkoon benn problème. ok jërëjëf kon dañuy rek dama war cee def benn tirage bu may def fii ci biir waaw ci arène bi te waaw xam nga làmb moom mm-hmm. comme maanaam euh, dañu tudd suñu benn mbokk bool dañu war a mobiliser mm-hmm. ñun ñëpp dem ca làmb ja mm-hmm. parce que yé daali moom suñu booy la boo xam ne wax dëgg yàlla booy bu yaru la te yàgg na moom fii wax dëgg yàlla moom làmb moom la bëgg mooy mbiram ci lay yëngu kon ñun war nañ ko mën a jàppale ci làmb ji mu bëgg parce que wax dëgg yàlla yi dund yàgg naa ngi fii mais wax dëgg yàlla moom ñu dem ci làmb ji jàppale yi daal ñu ci làmb ji yàlla may ko ci réussite bi mu bëgg mm. laa ci xalaat bi tuddee ko waa Bawol waa waaw waaw léegi tuddee boobu ñu leen ko tuddee Bawol lan la ci fas yéen waaw xam nga Bawol nag moom dëkk la boobu moom jàmbaar yàgg na fa daal mm. ngor yàgg na fa liggéeykat yàgg na fa mm. kon nag maanaam suñ demee ba lii ñu am ko dañ ko mérito parce que bool moom wax dëgg yàlla des yu ginnaaw ci réew mi waaw ci liñ man ak paar ba ñu féete ñu ngi koy béy seen waar quoi parce que moom waar la rek kenn ku ne waar wa nga ne da nga ciy béy waar ko defee lépp dox waaw loolu daal laa ci xalaat. ndeysaan li ma la bëgg a laaj mooy. Ah. Euh, ku mel ni sama papa des fois ma ne ko ah papa yow da ngaa bëgg xaalis mu ne man bawol bawol laa bawol bawol moom moo xaalis duñ def. waaw xam nga bawol bawol ak xaalis dañoo bool bool ak xaalis mënuñoo tàggoo parce que xaalis day doxal àdduna te xaalis dafa baax ci doomu aadama xaalis day mayew fit xaalis caabi la boo xam ne foo ko roof mi ubbiku boo mun xaalis rek du tee ngay dund waaye dund waat mu doon dund goo xam ne dina xaw a suufe daal moo tax yàlla na yàlla may xéewal gu bari ci xaalis bi waaw ndax moo gën daal ñàkk moom yàlla na ci musal kenn bëggu ko waaw ñàkk bu doon jëm foo ko fekk da ngay dagg bopp bi waaw noonu daal laa jot a dëgg la <laughs> jërëjëf kontaan naa xol sedd na ñàkk bu doon jëmm foo ko fekk dagg bopp ba man maa njëkk a dagg bi de ñàkk. tudd. jox ko jox ko sa waay. noo tudd. man Ahmadou laa tudd. Ahmadou. Ahmadou Ndiir waaw. Ahmadou da ngay seetaan làmb. waaw dañuy seetaan làmb kay. est-ce que am nga a waaw am naa mbër kay. am a sa mbër. man am na seen moo sama mbër. surtout Samba Xoyaan. waaw. barki démb de sa xol seddul trop trop trop ak Modou dul de seddul de sa xol sedd. dina sedd na. nu mu seddee. seddee ndax ni mu seddee moo leen. dafa mën a ñaaw te mujj far rafet. dafa a te mujj rafet. waaw lu tax nga wax loolu. ne dem moo loolu dama doon dégg en général ñu ñu bëri ñu naan bu ko ngóor si jàppee bu ko ngóor si jàppee bu ko ngóor si jàppee. Mhm. faral dogal ñu daje sama mbër attaques yi yëpp moo ko def song song yëpp moo ko def. non song amul ci làmb ji. non song am na ci daaw daje bi ndaje yëpp ñaari daje yi ndaje yëpp moom moo ko def. ma yaakaar la daje da koy cokkaasa muy dem ardo. non non non non non. doonoo songoo pare ci bu ñu songoo ci la arrobe boobu am. waaw suba ñu fas yéene dara jaal bawal bawal yi fële Fallou Ndiaye moo ko def fële ci arène nationale am jàkkaarloo yoo xamante ne idaali ñu ngi mu ngi ko fay waajal moom ban gis-gis nga ci am ak yan waajal ngeen koy waajal yéen bawal bawal. ban gis-gis nañ am xanaa ànd ja kontaan rek di ñaan suñu doon yóbbu ñu ci ak jàmm. di ñaan eh, ya daal maanaam bis boobu nga xam si moom la suñu borom a taala defal ko ci xéewal bu baax a baax rek ba lépp lu ñu ci bëgg rek ñu am ko ci ak lépp lu ñu bëgg ci làmb rek suñu borom defal ko ci. alhamdulilah Moustapha papa noo bu baax bi lan la Mbaye Sarr. Mbaye Sarr Mbaye Sarr la waaw. Mbaye bis bi ñu leen dara jaale arène nationale. xanaa yi daal di nekk ak ñun fii doon nit ku baax ñu koy ñaanal yàlla gudd gi fa nag waaw liñ ci njëriñ séentu ci bis bi yëpp yàlla eh, def ci lu jiitu seen njort waaw kontaan nañ ci yéen bu baax a baax waaw. bawol bawol yëpp daanaka ñu ngi koy waaj. bawol yëpp kontaan nañ ci moom wax dëgg yàlla xanaa ñëpp ànd di ko ñaanal yàlla rek waaw. waaw jërëjëf kontaan naa bu baax. am na solo. na ngeen defee coono. kilifa yi maa ngi lay nuyu. waaw ñu la. bu bëgg ceeb wala bu bëgg mburu. dama koy bàyyi Ndiaye nii nag. Hmm. waaw. ñoom Fallou Ndiaye géej gis nga ñoom Fallou Ndiaye. ñu koy gis mu def naaj. Hmm. waaw ci lutte simple bi. Hmm. loolu am na waaw ak yi daal di ñibbi bi wax dëgg yàlla. suñu doomi ndey la. Bawol ñu bokk yarandoo. muy ku baax. lépp lu muy yëngu rek ñun ñoo ci ginnaawam daal. waaw incha allah. nan ngeen di waajee journée suba bi fële ci arène nationale. ci lutte simple bi. am na njëriñ dañuy teew. bu soobee yàlla. waaw parce que lu làmb rek la ñuy dund. waaw bu ñuy def lutte simple. ñu leen ko defal. ñëpp dañuy wax dëgg yàlla seetaan si làmb ji. incha allah. Euh, Idaly war fa def jàkkaarloo bu am solo ci combat yi xale yi nga xamante ni tëgg na ko ci saison bi. li ëpp importance nag loolu ci la bokk parce que loolu mooy gën a tax sax ñu defandoo lépp bu demee ba yëngu ci làmb fekk lu suñu bëgg-bëgg nit dañ ciy ànd ak moom jàppale ko ci fànn yëpp nag waaw dinañ teew ci jàkkaarloo bi gis nañ lu ñu tëgg yàlla ko yàlla jàppale muy tëgg ay Balla Gaye Eumeu Sène ay ñi gis na ci kaw daal espoir yi ñu ngi tëgg tamit yàlla ma nañ la évoluer ban àgg foofu ñu ànd ak ñoom di di di di du ñëw làmb waaw loolu am na solo jërëjëf waaw loolu rafet na kontaan nañ ci yow jaajëf Faye. fàttali ma tudd. Thierno Fall. Ah. waaw man la Thierno Fall di xaritu suñ ji Fall di loxoom ci lépp muy sama loxo ci lépp. Hmm. ñu bokk nekk ci pàkk bi. Hmm. di mbokk di xarit di àndandoo di lépp. Hmm. maanaam man ak moom benn lañ daal moom fi mu toll nii fépp fu ma toog fu ne moom mu ngi mel ni ma fa toog fu mu toog it mu ngi mel man maa fa toog. yàlla moo dogal loolu. bokk nekk wane na ko parce que bi ñuy bi ñuy seet sëñ jëpp euh, bi bi mu bi mu yegseegul daf na sëñ Cerno bu ma waxalee daanaka mel ni ne man maa wax euh, te fësal na loolu Fallou Ndiaye tuddee leen bis bis boo xamante ne mu ngi ko dara jaalee bawal bawal yépp jiital ci sëñ jëpp euh, Fall ban gis-gis nga ci am. waaw loolu moom dañuy doole di ko rafetlu rek ndax Fallou njaay bu defee loolu def na li ko war ndax bool bool yi ñëpp ay bool boolan kon bu jëlee li nga xam ne moom la bool bool yi moom joxaat ko bool bool yi kon boobaa moom dañ koy rafetlu lool di ci kontaan lool ndax Fallou Ndiaye yàlla dogal na moom it comme ni ma demee si jib rek mbokk la sama jarbaat la sama lépp la kon bu jëlaatee bis bi tegal ko ci loxool bool bool yi su rawatee na mu teg ko ci loxool si jib fii ci pàkk Lambaay te ku nekk xam na ni wax dëgg yàlla nit ku baax la di koo xamante ni itam ku bëgg mbokk ku jàpp lu mu am lu mu am bokk ay mbokkam ndax euh, bool bool li ñu defal lu rëy la loo xam ne ñun mënatuñoo am lu lu ko fay amuñu ko ndax it ko bis bu toll nii bu ko jëlee yëkkati ko teg ko ci loxo yi bool bool yi ñëwaat boobu di ko teg ko ci loxo yi suñ ji mi nga xam ne mbokk la di xarit di àndandoo di lépp kon ñun dañuy gën a rafetlu lool di gën a sant di gën a ñaan yàlla dimbali ko ba lu mu mën ren yàlla mën lu ko raw déwén ndax it wax dëgg doomu aadama moom amul dugul mbokkam parce que ku basay mbokk dem mbokk itam kooka ak ngay ànd ak kooka kooka ànd ak ay bokkam moom nag moom defut loolu sant nañ ko bu baax gërëm ko wax dëgg yàlla suñu xol sedd na ci moom guy ñoo bokk ko jëfe na ko nii yàlla dimbali nga nekk ci benn bu yëngu-yëngu yaa ngi koy jëfe bu soobee suñu bi dina lox dina avancé dina li ñu soxla dinañ ko am rawatina kii mu ko def itam nga xam ne ñun noo bokk nekk ci pàkk bi moom moo ñu jiitu ci pàkk bi nekk suñu xarit di suñu lépp mboolem ko nekk ci pàkk bi moo nga fekk si mbedd mi ñu nekk nii waaye rafetal ak jëfin bu rafet boo xam ne moom lay jëflante ak nit ñi moo waral pàkk bi wax alhamdulilah rabbil alamin fii bañ fi nekkee ba léegi gone du tux gone du naan gone du def lu ñaaw ñoo ngi nekk seen liggéey respecté seen liggéey koo fi gis ko ne da nga koy nawloo te su may woone su loolu amee dañ ko ko sante ndax moom moo fi nekkoon avant fi daray nekk fii ñëpp fekk si ko fi man ni si ñi ko fekk si laa bokk ndax naa ko jëkk Ndakaaru mais nag vraiment man ci ñi ko fekk si fii ci laa bokk te boo ñëwee ni ma gis mu nekkee fi moo tax sama nekkin bi mën a rafet sama njaboot ak samay xarit ak samay ñëpp nekk fi muy nekkin boo xam ne bii ñëpp sant nañ a baax kon nag ñu ngi ci na ko waaye bu ko defee si jib def boppam la ko defal man ko defal ndax lépp lu ñu def ci si jib rek su may woone ku ma xam-xam si jib xam ne mën nga ko defal moom it wax la xarit la lépp la waaye li mu bu baax a baax a baax a xam naa daal ñoo ngi ñaan yàlla Fallou Ndiaye lu mu mën ren yàlla na ko man déwén man lu ko ëpp déwén téeméeri yoon yàlla na ko yàlla guddalu fanaan defal ko ay xéewal ba bis yi muy soxla mboolem kuy promoteur bu mag loo man mu man lu ko raw yéene nañ ko ko te itam yàlla dina ko def ndax it def na lu baax nit moom kenn du def lu baax di am a a dafa sedd guy dafa génn waaye kàddu yi moom ma ko yëkkatiloo ma daal loo fa mën di wax maa ko wax loo wan def maa ko def te loolu moom mas di am toujours fu ma teew bu fa teewee baax na fu mu téye de su ma fa téyee baax ma téyewul baax na noonu la ñuy dundee ndax yàlla moo ñu bu baax a baax a baax suñ fàllu daal na nga ko xamal ne ko say nijaay say xarit say àndandoo di bool ñëpp kontaan nañ ci moom lool suñu xol sedd na ci moom vraiment suñu xol sedd na ci moom guy moom moom ko jot ko joti loolu te xam ne wax dëgg yàlla moom mu gis ñàkk gis xam na nga xam loolu nan ngeen koy waajee suba nan ngeen fas yéenee ñëw fële ci arène nationale arène nationale moom maanaam waxuma sax ndakaaru gi mais bawal ñëpp ñu ngi koy waajal. xam naa làmb ji niñ ko gisee euh, ñu bare bare xam naa duñ comprendre ne nii la jógee waaye bool bool yi ku xale xam xam ne ku leen lebal fukk ñu fayal la ñaar fukk. ku leen lebal ker ñu fayal la guddi leen of di wax. xam naa bu soobee suñu borom bu subaa bu ngeen fa taxawee nii. di ngeen xam ne bool bool yi axee la nañ tey jii. ndax mboolem mi ñu war a taxawee dañ ko taxaw. ku xam bool bool xam ne moom lool loolu may mbiram. ku ko yëg dina si kam ñeneen ñi jëm ñi ci àllaa si gën bokk mi nga xam ne moom ñoo bokk lépp soo ma ko fa taxaw di xam ne am na bis tey moom bis bis bu mag lay doon incha allah jërëjëf kon ma bàyyi la nga woote rek ñu ñu tàggoo ba suba incha allah rabbi waaw boo man tam ñi may woo mooy sama mbokki bool bool yi rek ndax bool rek lañu am nun am nañ nag ay xarit ndakaaru am nañ ay xarit fépp mais nag bawal moom mooy suñu lépp ñoo ngi woo mbokki bool bool yi muy baawal gi li commencé lambaay yeeg ngoogam neexee Lambaay Seesu Faal ci fu mu boolem dëkk yi foofu ndàngal mbabat tout Réfane ñëpp ñu ngi leen di woo di woo parc Lambaay bii yëpp ba parc Lambaay bu Dakar parc buum ñëpp ñu ne bis bi seen bis la na ñëpp mobilisé wu ñëw jàppale Fallou Ndiaye parce que Fallou Ndiaye li mu def dafa rëy te itam ku def rëy da war a am lu rëy xam nañ leen nag xam nañ ne yéen du ngeen arrière du ngeen yokk ci seen mbokk lu ngeen mën nag ñoo ngi leen ñuy woo yéen ñëpp ngeen ñëw jàppale ñu te xam ne bis bi bis la ko am kaar ku fu mën mën di jógee na xam ne lépp mat na ne ñëpp préparé mobilisé ñu bàpp jàppale Fallou Ndiaye bis bi ni mel na a mel suñu xool sedd na guy ñu ngi sant di gërëm maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar. waaw màggal na nga ziar bu maa la ziar bu baax. am jàmm. ñu ngi sant borom Tuubaa bu baax. mel ni ci ñi ñi ñi jàppale bis bi. ngir mu gën di rafet ci nga bokk. dëgg la loolu am na loolu am na loolu moom am na lu wér a wér la moom. Hmm. waaw ah, sa diggante ak Idaly. non yow daal sama rakk la sama xarit la. yow hmm. daal moom maa moom su ma ci doon wax fii ba suba du jeex. Hmm. moom xam na man xam na waaw. dañuy jàppalante ci côté bu nag mm. moom sama rakk la sama xarit la. vraiment. Mm. waaw suba euh, mu lëkkaloog Fallou Ndiaye dëgg li traditionnel fële ci arène nationale mu doon journée boo xamante ne maam da ko defoon. mu neex amateur yi ne fàllu balaa ñuy dem ci koor gi dolli laatal ñu bis bu mel noonu mu ne ko duma ci def loolu waaye dama ci ànd ak sama rakk idaali ñu ñëw taaral bis bi idaali war fa def jàkkaarloo ci bis yi nga champion yi nga xam ne tëgg na leen ñu dara jaaree ko bawol bawol yi ban waajal koy waajal en tant que doomu bawol non loolu moom balaa kontaan gin ci kontaan mhm. parce que ñaar ko tëgg ñëpp man samay xarit lañ te ñaar ñu xam làmb lañ mhm. ñaar ñu jara jàppale lañ mhm. parce que dañoo nekk ci yoon xam li ñuy def ànd ceeg seen i mbokk ànd ceeg seen i xarit kon loolu bu amee duñ am lu ñu ñu rafetlu ko. rafetlu nañ ko trop trop trop trop trop vraiment en tout cas bool bool daal ñëpp dañ mobilisé wu. feesal stade waaw loolu daal xam naa ne dina am moom. waaw yéen bawol gépp ñëpp tey mobilisé wu feesal hmm. ko wax. drapeau a bawol da warul yow. day fees del day fees del làmb bawol làmb mooy bawol hmm. waaw. boo tëggee làmb boo ci génnee Baol Baol dara du am. maa la wax loolu dimanche Baol Baol ñooy feesal bi. Hmm. ñooy sànqal loolu dagg billet ñooy ñëw seetaan làmb ji. ku tëgg làmb te boolewoo ci Baol Baol du neex. maa la wax lii. mel ni nga togg ba mu neex amul xorom. amul xorom kenn du ko lekk. waaw moo tax làmb ji Baol ci Baol Baol lay mujjee. Hmm. maa la wax am nga mbër. non man nag ay mbër bari naa ay mbër man amuma mbër de man ay xarit laa am. waaw ay xarit ñoo xam ne samay xarit lañ samay rakk lañ samay doom dama leen di jàppale ci lépp dama leen topp ci làmb di leen topp ci leneen lu bokkut ak làmb waaw man moom ay xaw ma mbër xarit la am waaw am nga promoteur promoteur yo daa léegi nii Fallou Ndiaye Dieye Dieye ñoo bokk sëriñ maag moom kii sama rakk la ñoo bokk nekk Fallou Ndiaye sama xarit la ay promoteur du jeex comme ni nga mel ci mbër yi rek noonu nga mel ci promoteur ñëpp samay xarit lañ ba ci yéen ñi ñëpp samay xarit ngeen. waaw waaw jërëjëf kontaan na bu baax. léegi sama waa ji yow. ndeysaan ayca mbokk yi gis ngeen loolu lañ leen indiloon fii ci euh, Pàq Làmbaay doon journée boo xamante ni axlu làmb ñu ngi koy xaar waaye rawatina amateur làmb yi rawatina bawol bawol mu doon journée boo xamante ne fële ci arène nationale Fallou Ndiaye Ndiaye production moo ko organisé. teg fa mise ba 4 millions la defoon na ko mu neex mu defaat ko mu neex mu defaat ko mu bugg koo defaat tollanti ko xam naa loolu mooy niñ leen dem koor ba ñëw am na leneen lu ma leen dencal muy buuñaa wax na ma ni am na euh, mise bu am doole boo xamante ni moom Fallou Ndiaye mu ngi koy waajal fële ci arène nationale mbokk yi kon ñu leen di jaajëfalaat bu baax a baax di wax ni rek làmba ngi noonu amateur yaa ngi noonu ba léegi incha allah jërë ngeen jëf.